salaamaaleykum maa ngi euh, nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam euh, yéen may seetaan yàlla jàmm nekk ci yéen wàcc ci yéen yàlla leen yàlla aar yàlla yàlla jàppale euh, man nag nattu dab na ma mooy Covid 19 bi testé nañ ma mu positif ba tey ji maa ngi ci hôpital bu Diamniadio ci sant yàlla bu baax alhamdulilah sant yàlla bi ma nekkee Sénégal sant yàlla tamit bi ma yàlla booleeg euh, un personnel sanitaire autorité sanitaire euh, yu am benn leadership bu am compétence euh, maa ngi ci san suñu borom bu baax a baax di féliciter le ministre Diouf Sarr su ma ko féliciter tudd naa ñëpp docteur yëpp yëpp yëpp yëpp ay famille yëpp ak euh, lépp loo xam ni àdduna ci ku ñëw ba hôpital Diamniadio ci ngay comprendre en fait euh, tout la chaine euh, nu mu complexé et pour mën a maîtriser donc lu mel nii di leen sant leen gërëm bu baax suma mbokk yoo xam ne nag bu léegi mucc nañu yàlla na yàlla continuer leen aar mooy wax ni nañu gën a discipliné moytu yooyu moytu rassemblement mbir bi moom xamul député xamul ministre xamul directeur d'école Euh, donc na ku nekk moytu euh, vous avez euh, tous les moyens mën ko échapper discipline rek ak topp sa kër te nànk-nànk ak ànd ak dal ànd ak dal li ci des moom mi ngi suñu loxo borom te léppay sotti maa ngi dégg coow yu bëri tamit wante dal ak discipline fermeté suñu borom mën nañu ci génnee musal ñu ci kon à très très bientôt euh, ñaanal leen moom ma fekk leen ci biti euh, du yàgg incha allah fi amanillah